monsieur le maire vraiment euh, waxtaan bi neex na mais temps bi daf ñu njëkk te am na ay questions importantes yoo xam ni euh, faw ñu jaar ci. Mhm. Euh, tey jii seen sur le plan national seen leader gis nañ ko wax dëgg yàlla ñu ngi gis ni que par rapport ak yeneen échéances yi passé yeneen préparatifs yi bii en tout cas en tout cas sentir nañu ci temps Euh, une certaine effervescence sentir nañu une certaine confiance mais par moment dañuy gis que y a toujours dafa am des polémiques sur seen communication bi ci mujj moy mooy affaire pàkk bi ak ma <laughs> yow euh, léegi naa nga fi ci bir Thiès. waaw euh, xam nga euh, président Idrissa Seck bu baax certainement du do xaar ak bam wax la nga do xam li muy xalaat. Mhm. parce que xam nga ko yàgg ngeen. léegi yow sa opinion ci question bobu lan la. non fofu damay wax rek que ni franchement Sénégal mom c'est un pays de bizarrerie. <laughs> d'incohérence et même mun de contradiction ciow li yep ah, jóg autour du président Idrissa jaru ko fi jaru ko fi ah, lan la ñu wax ne mom le président Idrissa wax dañu ni dafa yëkëti kàddu tuuteel sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ay katch la ay sos amul waxul ko fenn Ñaarël bi mini Euh, màq amul ci alxuraan bàq la wax te jullit yi bu ñuy aji war nañoo dem Jérusalem loolu ay kàcc la ay sos la amul lan la Idrissa wax si Israël Jérusalem si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni juif yi dafa retracé l'arbre généalogique des prophètes loolu c'est l'histoire ku tàppe si net bi l'arbre généalogique des profet da ngay gis ñu génneel la ñëpp profet yi loolu c'est l'histoire mi ni juif yi dañoo mënul nangu parce que yonent yëpp ay juif lañu Muhammad moom arabe la juif yi dafa ne munuñu koo nangu looloo leen di metti looloo metti seen xol ba moo tax munuñu jubook araab yi et loolu moom moo waral la crise palestinienne loolu la wax kon li nga xam ni moom lañ ko fa wax ay kàcc la déggoo fenn mu yëkkati kàddu jëmale ko si sang-sang yi bu ñu nee si wàll euh, bàkka foofu dafa laaj imam bu mu tasaloon biir màkka

ça ñoom dama ne la si ñaari fànn yëpp amul lenn lu nga xam ni Idrissa am nga si firnde posé ne des actes yu leer nañ mais état bi si boppam dafa posé ay actes yu leer naññ si ñaar yooyu si nga xam ne tuutal euh, yonent bi ne jullit yi Jérusalem la ñu war a aji ma leeral. ah da nga jàpp ni loolu manigance état la. la mais état bi dama lay wax ne xam nga da ko tuumal Idrissa.

saay-saay yoy Macky Sall talul avion dem fekk ci français yi ah, ñu lëngoo ñu ni ñun ñooy Charlie ñun ñoo toroxal yonenti bi ñun ñoko ko desin te damay rappel Macky Sall ba journaliste cette jeune fille là bam ko caricaturé lu mu ko def dako japp lu tëj mon président de la république doomu aadama yow fi nga xamni ni sang-sang yi lañu ñuy cari ya ah def jëfine bu ñaaw bop ngeen dem France Longo, je suis Sarli comme acte de ñoo def mhm, xam nga ñuy Idrissa ah, aji Jérusalem mais ñom ñoo aji Jérusalem à travers leur ministre des affaires étrangères ah, Siri Kaba mo dem fofu mur de lamentation sox koppite bu ndawam Bobu? du julli comme ñom ñoy def te vous, musul leen fa gis Idrissa bi tole bi c'est normal et là je dis ici de la xam nga nit Sidi Lamignas, pour tout le respect que je dois, il ne peut pas s'autoproclamer procureur général de Dieu. Il n'est pas le procureur général. Le prophète Moussouko donne, Moumouko donne. C'est-à-dire que nous tous ces, moyens médiatiques, ci 16. Ne may gi yow da ngay dugg safara yow da ngay dugg yow dama lay gi il est mal placé parce que mom ci Eh, eh, day dañuy rafet njort rek ne jullit la mais si yàlla est-ce que jullit la yàlla doo nga xam am na keneen ku nga xam ne oustaz Alioune Sall borom sikkim bu weex bi moom itam yar na sikkim moom weex nag yor na kurus dañuy jàpp ni dañuy am njort bu rafet nekk ni jullit la mais si yàlla est-ce jullit la te man dama jàpp ni Idriss Seck dama ànd ak moom dañoo nekk ak moom 96 ba léegi ma nekk ak moom suñuy réunion bu waxtu jotee mu arrêté dem julli Vous vous ak mom délégation fa nek suñuy cinq heures du matin mo moy ne leen de ngeen julli julli gi bo dañuy jité ñu julli ba paré mu tok duñu nafaral soxnam bo duggé seen kër mëno ko gis parce que dañuy dundu diiné gi pourtant mën nañ le pouvoir ñi fi le pouvoir ñëpp xam nañ leen xam nañu seen demb ak si wàllu jigen nga jéppi si on alal nga jépp donc loolu dama bëggoon mu leer que ni euh, coow li dañ ko tabax parce que c'est normal aujourd'hui Macky Sall képp ki nga xamni amna ci yow moyen pour te détruire il va te détruire il a détruit il a tenté avec Kayim génne nako nekul électeur si si si si loi buñu mujjé mujjee tout électeur la wax waxul sax tout Sénégal tout électeur kon génne nak Karim wad génne nak Khalifa Sall mais Idrissa Seck lay yeeru dans ses communications que xamnañu ni comme diina lay wax mu dem recruter Bamba Ndiaye Bamba Ndiaye était avec Ablaye Wade Bamba Ndiaye moom ak Sidi Lamine Niass ñoy tek dil ba Ablaye wad waré waré waré waré waré légitimer le monument de la Renaissance ñan le recruter won Bamba Ndiaye Sidi Lamine Niass et pourtant, il y avait des ulama dans ce pays, ils ont wahni, monument de la Renaissance, mais ils ont donné, C'est des dealers et des mercenaires politiques. Dans gis sax ci youtube bi ñu jël mauritaniens mauritanien xam nga arabes ko Arabie Saoudite mu taxaw ñu ni imaamu jàq imam imaamu màq mi des mi ngi mi di un mauritanien xam nga xam nga saoudien du làkk tubab leur langue c'est l'anglais et le français et l'arabe xam nga un Mauritanien buy làkk français da koy xam ay nar nek ci wétam ñu ni lii yooyu c'est des ça c'est c'est des montages monstrueux yu nga xam ni dañuy def oustaz bu nek jël du wax et je crois que. mais Lamine nga japp ni loolu yëpp ci ci cabale bi la bok euh par rapport à votre leader pour le destituer par rapport ak ay manigances Macky Sall mais ana ba amna question bu ñu ko doon nañ ko déglu am. waaw. Euh, ñu gis ni ñi ngi jublu ci élection 2019 naam kàddu yooyu ay kàcc la comme ni nga ko waxee est-ce que du am benn impact ci seen posture politique. non mënul am impact suñu si euh, si si élevé. xam nga lu tax parce que Sénégal dafa ràññee Sénégal dafa ràññee ah sénégalais yi euh, ñun Idrissa Seck toppuñ ko ndax euh, toppuñu ko pour mu doon suñu imam pour mu doon suñu sëriñ wala murid la wala tijaan la dañ ko topp parce que dañoo am yaakaar ci moom par rapport à ses compétences et ses capacités intellectuelles et managériale Il y a une réunion, ministre du commerce le na ministre d'État auprès du directeur de cabinet du président le na premier ministre le maire de la ville de Thiès gis nous par rapport à tous ces postes lu mu liggéey le la koy Sénégal et bientôt nous allons décliner le programme notre vision du Sénégal secteur par secteur te bu décliner Sénégal carte glaire. mais est, tey foofu la ñuy xaar boo jëlee histoire histoire politique du euh, histoire politique du Sénégal c'est-à-dire la religion nekkul un moyen de conquête du pouvoir ku ko da ngay nax sa bop? mënul nek conquête du pouvoir parce que tay bo jëloon Senghor mais ñu mu doon jàkkaarloog ay julit lañu Lamine Gueye Cheikh Tidiane Al Maktoum sax jàkkaarloo nak Senghor et pourtant Senghor doon gagner en tant que chrétien appartenant à une communauté minoritaire da doon gagner. ndax bañu ñu Seigne Babacar si ak euh, Seigne Fallou